waaw tey ñu fas yéene si ay laaj ak ci njëkk nag ci bi njëkk ak yow. Hmm. ñu bëggoon xam gis lan moo ñu ngi lay nuyu euh, di nuyu seen euh, site internet bi nga xam ne mooy euh, Banlieue Fësal TV di kontaan bu baax ci ñëw bi ngeen fi ñëw seet si ñu di nuyu suma grand Ahmed Sall l'initiateur di wax que ni.

comprendre nga bi ñu ñibbisee nag ba ci oto beeg yooyu yëpp mayu ma sax grand yu ma àndaloon jàmb di continuer di wayantu son yi nga xam ne ñoom laa fekkoon foofu gaay di euh, di def par la suite ci laa continuer noonu ak seen son yi du may fii gars yi jàmm chaque jour ma jël benn commencé di wayantu ab euh, et puis am na suñu benn grand bi fu nekkoon si bu tudd bro ma koy euh, big di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana parce que dafa gaañu après moom aussi rappeur la woon ñun dañ ko daan balak suñ ko musaane gis mu sol ay yére wala mu nekk fii di ñu romb dañ daan wax xoolal sa waay la tellement ay reetaan la defoon mais moom après moo ma gis nag ma commencé di foowee affaire bi mu reproché ma ne ma pourtant li ngay def nii mën na gën a dëggu mën na gën a réussite comprendre nga ak loolu ci laa collaboré ak moom moom laa njëkk defal groupe group bi tuddoon fikru bi crew man ak moom ñoo ko créé woon ma koy ma koy ma koy ñaanal bu baax yàlla xare ko àjjana ak ñëpp ñu fa fekk man ak moom ñoo ko créé en 2005 2006 suñu deux premiers maquets yi ma njëkk def man ak moom ñoo ko def muy euh, bro pour ma def briefing euh, peut-être noonu mooy loolu mooy li nga xam ne moo ñu dugal tamit ci ci ci mais comme ni nga ko waxee noonu loolu mooy dugal ci musique mais tamit ñu bëggoon xam koy def pour plaisir ni kese wala koy def comme gars yi ni ko ancien yi fi nekkoon doon defee est-ce que nga ñëw tuuti. voilà affaire art ku nekk xam na ni euh, première chose bi mooy passion bi d'abord c'est-à-dire nga bëgg ko. soo ko bëggee nit bu nekk nit li ma bëgg yàlla dina yow sa bopp yàlla dina la xamal que ni lii may na la am nga ci talent wala amoo ci talent même bu la ko ñin ñu waxul c'est-à-dire yow sa bopp soo conscient wee tuuti di nga xam ne lii su ma ci góorgóorloo yàlla mën na ma ci dimbali en même temps di nga xam ne aussi peut-être su fekkente ni xam nga ne psychologiquement mënoo ci lu bëri di nga xam tamit que ni bi dama ciy sonn rek mais mën naa ci bañ a euh, ñëw fi ma ci bëgg a yegg mais euh, pour wax que ne la passion moo ci njëkk muy bëgg bi ñu ko bëgg ba pare topp ko nag def ay formation def ay gëstu lépp lu nga xam ne daf ko laaj dañ ko def durant ñu ñu ñu ñu toog depuis depuis le 2003 boobu ba léegi pour wax la que ni rek bu bëgg bi weesoo dañ ko gëstu def ay formation def ay son def lépp lu nga xam ne daf koy laaj pour mu accompagner ñu parce que bëgg bi rek doyul waa voilà loolu euh, loolu moo ci nekk mais tamit lu ci nekk lu waay di def rek am na loo ciy séentu bu weesoo bëgg bi peut-être euh, am na leen loo ci séen loo ci séentu nag loolu c'est pas forcément da ko ciy am da ngay def li nga war a def def ko avec le cœur mais li ciy ñëwaat en retour peut-être loolu moom euh, nekk bi nga ciy nekk moo koy moo koy jugé pour wax la que ni rek bëgg bi mi ngi fi mais aussi lépp lu nga xam ne daf ñu ci fekk daf ñu ci fekk mais bëgg bi mi ngi ci et ci yoon bi lañ nekk depuis boobu waa. waaw souvent tamit dañuy gis comme rappeur yi am na ñoo xamante ne nii comme nit loolu nekk rek am na ko ci jiitu. mais est-ce que am nga idole ci ci art bi nga nekk comme comme tey ci ñoom ngay wax. waaw mooy c'est comme ñu ma la wax nii déjà Rijal Klein lañ tudd mooy grand yi nga xam ne ñoom laa njëkk a gis ñuy répété. su ma amee influence peut-être ci ñooñu la jógee kon su fekkee dama am idole wala ñoo xamante ni peut-être mën naa ne ci ñooñu laa commencé ñoom lay nekk ñu ngi tudd Rijal Klein ñu ngi dëkkee yëmbal ma leen di big up aussi de passage di wax que ni euh, chaque jour du ma taay laay di wax que ni foofu laa njëkk a amee inspiration def def def musique waa voilà beneen bi mooy ci Matador laa nekkoon agriculture urbaine def naa fa ay formation xamante naa gars yi fa nekk ñëpp di def ay rencontre parce que loolu mooy artiste c'est-à-dire foog ngay essayer di am di di di di euh, approcher yenn nit yi et puis di échange loolu mooy tax nga mën a dajale benn culture bi ci sa bopp voilà bu wax la que ni rek membre agriculture urbaine la def naa foofu ay formation hip hop académique ba am sama euh, attestation

au début album lañ ko bëggoon def mais comme dafa am benn programme bu ñuy def chaque année tuddee ko maa aye show l'année passée amul woon parce que sorti projet bi moo taxoon moo nekkoon septième édition bi dañ koy defee Jacques Chirac au début xéwal gi lañ ko daan defee mais comme Jacques Chirac jege nañu et puis moo gënoon a yaatu xéwal bi léegi laneen la nekk ci leen ñëwee Zack Sira trois éditions yu mujj yëpp fa lañ ko defee mais bi ci mujj dañ ko boolewaat ak sorti benn projet bu tudd jagle moo nekk nii sept moo ci nekk am na ñaari vidéo aussi yu ci nekk maa ngi lay wax sànq suma lien bu YouTube bi demee foofu di nga mën a gis sama vidéo yeeg yooyu wax nii rek moom moo moo nekk suñu first projet euh, sept titres moo ci nekk mi ngi tudd jagle gars yi mën nañ ko am fépp dañ ci génne ay CD comme nii mais am ay clé USB

proche yu nga xamné depuis le début ñi ngi ñi ngi sama wet mais ku nek xamné ne art aar aar nekkul nit kessé mo koy def équipe lay laaj même bu féké maa ngi nit yi nga xamné ne maa ngi liggéey ak ñom mais pour te dire vrai euh dess na quand même nit yi nga xamné ne euh, dañuy mëna am connaissance bu baax ci liggéey bi dañ ci mëna dox parce que artiste bi mëno mëno dajalé lépp mëno di musique mëno di ménager sa bop mëno di def yenn affaire yi foog équipe la laaj pour wax la que ni rek amna ñu ñuy ligéyal ñu ngi essayer di avancer avec les moyens du bord mais aussi euh, peut-être avec le temps affaire yi dina gëna a évoluer waa. waaw mais booy dugg dugg tam ci aar bi lan nga sentir comme ça ba am affaire jafe na ci wala amoon nga jappalé bi nga xamante ne bii moom mën ngeen mën a dem. Hmm, bi waaw ku nek xam na ni toute début euh, difficile commencement yépp ben ben ben yomb ci mooy li wax au début c'est-à-dire foog mu laaj passion yow ya koy bëgg d'abord nga nga avancer dem ci kanam yooyu mënul won ñak mais yooyu ñoo nekkoon défi bi ñi doon wax mënu ko du dem du def ni du def na ñoñu ñooy nekk ces défi parce que ak ñoñu moy tax lo def xép ko et puis da ngeen a noo ak ñi dina jéem yegg fi pour wax la que ni fiñu bëgg egg yépp lu ñu bëgg def yépp yëpp guñ loolu yépp sérieusement commencé guñu sax li yépp c'était c'est juste ay affaire lo xamanteni peut-être dañ ko def ni ni rek mais pour wax la que ni li ñu bëgg def deug deug ak fiñu bëgg a yegg euh, demaguñ fa yeggaguñ fa te yalla nañu fa euh, yalla yobbu kenn bañ a manqué ñëpp fekk ko incha allah. waaw comme tamit euh, l' émission tire à sa fin kon balaa ñoo jeexal rek. Mhm. dañ lay laaj benn question parce que bari na xam ne bu ñu yëngu ci benn ko booleeg benn métier mais est ce que waaw parce que tamit euh, bi ñu bàyyee jàng parce que ñu bëri souvent dañuy foog ne jàng mooy nga dem école baax na mais nekkul ne loolu kese mooy jàng tey métier bi ngay am jàng la liggéey bi ngay def jàng la maçonnerie jàng la da koy jàng doog ko mën menuisier da nga koy jàng soog ko mën école bi. peut-être langue la ak ay techniques yu nga xam ne occidentaux yi ñoo ko organisé teg ko à côté ba nga xam ne dañ ñu nax ba ñu foog ne ku ko deful nekkoo dara fekk jàng mooy li nga xam ne dañ ciy topp pour am savoir cest à en retour sa xam-xam la lay la lay la lay euh, la lay indil moo tax bi ñu arrêté suñu ay études dañu dem jàng ji métier métier euh, tailleur nekk couturier en même temps boo ko ak suñu aar tey chef d'entreprise lañ li ñuy ndaw ndaw yëpp am na euh, équipe yu ñoo xam ne tey ci ñun la ñuy liggéeyee ñoo leen di jàngal métier en même temps ci équipe lañ pour wax la que ni rek euh, am nañ petite entreprise à côté quand même su su weesoo aar bi ñuy def pour te di ka bu ñu yi nax tey musique kese surtout Sénégal fii fayul fayul fayul c'est-à-dire euh, aar bi dundalul ay ay nitam. kon li lay dimbali mooy nga am loo ko booleel tey kaana yi su ñu lay wan télé fii nga gis ñuy dawal ay oto yu mag di wane ay kër yu mag tey nekkul musique kese moo leen may loolu ku ci nekk yaa ngi def sa business à côté que ça soit jaay dorog jaay torop jaay ay pneu oto waree fa ku ci nekk jaay ay yére ay marque yooyu lañ koy accompagner ñun peut-être amuñu doole boobu tey lu ñu am mooy ñu formé wu ci métier yi nga xam ne moo fi nekk bi ginnaaw bi ñu arrêté euh, école comme amuñu yenn diplôme yu mag yi nga xam ne peut-être moo ñuy permettre ñu mën a liggéey ci administration ak métier yi lañu am am naa suma métier à côté maa ngi koy liggéeyee su aar jotee sama musique ma respecté ko su liggéey jotee aussi ma def ko ñaar yëpp laay boole waa yàqalu ma dara. mais ñu bëggoon xam tamit ne euh, comme da nga ne jaaroon nga école mais la ma waral sa bàyyi école art bi la wala da nga ko bàyyi pour dem jàngi métier wala. non école euh, ay ay affaires yu bëri la peut-être euh, temps bi du ñu may trop trop ñu développé ñu développé ko mais ku nekk xam na vie sociale bi ñu amee fii. que ça soit sa parents sa entourage am affaire yu bari en tant que gor loy nek nek boy aussi do meuna a ay affaire yu bari peut-être lolu benen émission lay laajaat parce que euh, voilà wa pour moi pour moi wax la que ni rek ay ay ay question de social question de motax ñu gëna arrêter peut-être ñu arrêter arrêter tôt suñu ay études mais c'est comme li ma la wax ba légui ñi ngi continuer di gëssu ñi ngi continuer di jang voilà bi wax que ni rek euh, ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci école yi nañu continuer gën a góorlu ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci yeneen euh, facettes yi aussi ñu gën a góorlu xam-xam ni le savoir moom mooy lépp le savoir est une arme loolu la loolu la li fi Youssoupha wax. na benn question boo xam ne wax mais boobu léegi daf may xaw a échappé. Mhm. muy euh, rab bi tamit gis nañ ni am nañu bu ci nekk nañ ci classe est ce que loolu war na mën a ñàkk wala joxal. rab benn branche la ci hip hop hip hop. moom mooy kër gi euh, rab benn néeg la ci kër gi am na break dance am na euh, graffiti am na slam bëri na ay façade yu nga xam ne ñoo ci nekk rab benn branche la ci biir rab dafa am daf la may ngay ngay classante mais classe bu nekk day day méngoo ak contexte dëkk bi wala boog seen ay culture tey kaane yi ni ñuy def di saagante wala di tiirante ñun mënuñu ko def fii peut-être li ñu mën a wax rek mooy ay menace verbale ku nekk di wax sa moroom fii di wax fa mais quand même ku ci nekk nga fexe xam ne rek lii yëpp day passé après dañuy nekkaat ci ne ñun ñëpp dañuy nekk ay mag dañuy nekk ci ay père de famille ku ci nekk li ngay wax tey na nga fexe bu subaa buñ la buñ la ko wanee nga bañ a rus malgré que ay jeunes lañ mais euh, na affaire yi gën a teggi ne waa gars yi mun nañ classante mun nañ waxante lu leen neex mais mu teg ci respect et puis mu tegu ci cadre hip hop waaw kon euh, fi la ñuy daanele kàddu rek balaa ñoo jógee foofu tamit dañuy wax comme ça message may lancé jeunes yi nga xam ni donc nekk nañ ci aar bi wala ñu ci bëgg a ñëw ba message nga leen di lancé. Ah, di leen wax bienvenue ah affaire yi yombul affaire yi du du loo xamante ni sax da nga naan nit bi bul ñëw wala yi da nga koy bàyyi moom ci wax mu ñamal boppam dina xam bu yombee dina xam bu yombul dina xam di wax que ni aar bi yaatu na géej la ñëpp ñoo ci xaj que ça soit rap que ça soit beneen musique que ça soit beneen façon aar. whatever lépp aar la dafa yaatu trop ku nekk mën nga ci def lu nga ci bëgg def li ci am solo mooy nga objectif xam que ni nekkul caaxaan nekkul affaire yi nga xam ne da koy def nii pour passe temps non non dañ ko jël trop au sérieux dañ ci sérieux parce que même bu ay ñaar ñett nit ñi ngi ñuy déglu et puis dañ ñu gëm trop trop moo tax foog ku ci nekk balaa nga ciy dugg nga waaj ko et puis nga xam que ni lu sérieux la waa voilà nekkul ay ay fo voilà léegi kon dañ lay wax waaw kàddu bu mom bi euh, remerciement lay nekk rek le fait ngeen euh, que bi moy premier numéro émission bi voilà loolu mom c'est un honneur le fait ngène euh, tijjee émission bi ci man c'est un honneur di wax que ni rek yalla nek ay émission yu baré baré bari passe bi nek passe bu visible ñep mën ko gis ku nek xam na banlieue Banlieusard sot la xam le fait mu nek suñu yëf ñep lañ koy sot di leen wax que ni euh Banlieue feussel TV moy suñu télé moy suñu site internet nous avons eu yëpp dem euh, sur le net émission est ñi ngi euh, voilà nous sommes ñëpp sot je ngi leen di remercier le fait ngeen déplacé wu ñëw Je si remercier suma grand ami Sal. di que euh, c'est le Sénégal qui gagne c'est le banlieue qui gagne voilà merci beaucoup merci beaucoup d'ailleurs jaajëf Yes, man mii ma gis jéem si ma ay jàmm ma ëpp lépp bés bu nekk borom alal tëdd ne talu sax reer suuf si moo gën a yaatu fépp laa jël ñi ko doon war ndax dañu mujj teer ma jaare ci way ci gën gi mi nabi ndax moom moy suñu géej lu muy gën a metti may gën a yegg di gën a bég bég ndax lii dama cee fier bañal nga dund lu metti te jàngoo ci pertil la ñaari yoon jaru muy metti booy lii tàngoo ci seeti jël beneen yoon hey benn buum moo la met nga jël arme yëpp def fi noonu ndax amul si ko vingt ans la ko tëj soo ko joxoon goon sax mu sax la ko gis em lu mu wax waxaat kow sama digg tànk ba ci bopp waxaat kow jaru ngay duul di wax yaa fi dàq sama sa maf bi chat kow du nangu nekk dooma raamu kenn même su may def fit ak jeesi ma nangu sukuraam mar daatu kenn kenn lépp ngir ba nga toog ci sees bi balañ laa ci géej doon laa ci teg gis em sa bopp ci pencim ba ma nefi my ay my ay ma hey maa leen di wadal comme kuy gor garab xool maag ñii benn benn maa leen di faj ndax dañuy daanu rab boy yi mënuñu rab dañu rabe boy yi mënuñu caat dañu tabe boy yi mënuñu jiit dañu dabe ay ree leen may def suñ may jaay ñeme ndax man kot maa leen di nox ba fuñ ma séenee dañuy lem kenn topp hip hop ance dañu jébali ci man te dama leen a dalal booy ñi ngi nee toog mun a man papa maag sa yaay ñooy fo soo xamul da ngay laaj ji waa foo dof dof lu dafoo da ngay laaj te xamoo fu mu nekk ñi ngi taamoon munoo bëgg lax fooy ma tëkkaleeg booyooy di wiskit ñun démb la ñu jàdd tey ñu def tek li ñuy laal nii weccit la. maa ay maa ay maa ay hey gis el moo ay ndax booy dañuy sob duñu defee dërëm dërëm wax leen maa ay. maa sama génne dañuy taxawaay ndax booy dañuy sob duñu defee dërëm dërëm wax leen maa ay.